damay teel a wax amin na yàlla ñaan ndongo lu tuuti nëbbul juróom-ñaari at ca lay yam eggul fukk sunu sang bu baax bii di El Hadj Cheikh Pape Dramé jël leen xar seen dën raxase ko ki ko ak leer ko nag ñu ko ko fay. tey kii sa sang di sa kitaab wal Alxuraan ni na ngeen ci sax dàkk te toog ferenkulaay ci xasaayit yi maam Cheikh moom dem nañu Danemark maa moom dem nañu Suède maa moom dem nañu Belgique maa moom dem nañu France maa moom dem nañu Canada maa moom dem nañu Ngaye maa moom dem nañu Mexe maa moom dem nañu Ziguinchor Tamba maa moom dem nañu Iba Mar maa moom dem nañu Demba Diop maa moom dem nañu ba dugg ci biir rebelle yi. ndax fi ñuy wax maam Palaago jamono boobu rébellion tàng lool ñu ñëw ba ca foofu suñu roue crevée. ma ko ah Buur Siin Kumba Ndoofeen ay sa maam de sa deretu mbàkke mbàkke ngi ci sa yaram wi fexeel nu mucc day anek box bi ma lay def man man man boo may filmé waaw waaw ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal waaw Serigne Cissé dañu ma damay wax ñu may fay du ma sànni samay wax Serigne Cissé dama ne dañ ma damay wax ñu may fay waaye bis bi kenn du ma ne loo fiy def man maa soppi Medoune Diouf reporter maa ko soppi caméraman reporter mooy benn danoo ànd Casamance drapeau Ablaye Balde Abdou Diouf ak Bruce Lee Serigne Modou Niang moo ko tëgg tuddee ko Ablaye Balde ñu dem ñu dalal ñu ci bi ñu dalalee ci hôtel melul néegam man sama néeg maawo siise néegam ñett moytu leen ñett gardien ci kër chauffeur ak femme de ménage moytu leen chauffeur looy nëbb nit boo toogee ci sa biir oto di nga ko wax te dina ko dégg gardien boo dee dox ko tu guddi wala def ko noonu gardien da koy xam femme de ménage ki lay baleel sa biir loo fa dugal xam na waaye Lamine yan qualité mën na ci biir. maa ngi ñëw. plus vite que la musique on danse mal. bi ñu defee loolu. femme bi def bii fobeere néeg daal na Lamine Samba kaay foo dëkk ma ne ko Dakar mu ne ma Médoune mii fu mu dëkk ma ne ko Dakar Maaw Cissé mii fu mu dëkk ma ne ko Dakar mu ne ma man damaa jaaxal yéen de seen néeg yi laa fekkul yamba sàngara ak cigarette buñ koy bale néeg bu nekk danañ fu fekk yamba sàngara mbaa cigarette ma ko parce que duñ ko def muy wax ku mënul def lu mu xam parce que duñ ko def da ngay mooy nangoo liggéey mooy professionnel mooy bëgg boppam ba noppi yow askan adduna bépp la lay sama maamam mu la ci gën a marqué boo xam ne def sa bopp boo dul fàtte ndax ànd ngeen fu ne Serigne Cissé. Balla Gaye. yëkki loo ma ci indil loolu. damaa feebar feebar. dégg moom midi lañ daan dem. stade midi Balla Gaye yëkki ma feebar. mu dem jëndi paracetamol. da ngaa soppi jënd ay fenergan jox ma ne ma mënoo ñàkk ci biir combat. ki ma dimbali ki ma jàppale. pourtant bi nga a ci lamb bi loolu feeñu loolu kon boobu lañ doon wax naan reporter ba baat ba daa dee. maanaam su ma noppee rek sama bopp bi mel ni yow yaa ci tëgg mbabas wa dëgg wa dëgg wa dëgg wa dëgg wa dëgg wa waaw noppi lay bañ bi ma paree daf maa guuta mbaay yóbbu ah, hôpital du ma fàtte loolu mukk ci àdduna ak moom bi ñu maa ngi moom bi ñu njëkkee jël vol jóge Sénégal dem Paris découvrir làmb mu ne ma naam ma ne ko làmb fay nañu laay daa xam nga ñuy wax la bëgg ci xol Balla Gaye ma bëgg bu may faral Youssou Ndour laay faral moo may xanaa xam guddi yi Modou Lo laa gën a jege. boo ñàkk barki ma maa ma ànd ci ministre bi. Bombardier damay dem këram añ mu jëw sama kër añ. balaa ma bëgg. waaw loolu de kenn mënu ci dara bëggante la. moom moo ma bëgg. nga bëgg. xanaa xamoo lu mu jàpp su ma ñëwee mu baax. li ñëw defar euh, naa ko ci alxuraanu karim barke say Seydina Mohamed fay ma milliard ne ma demal wan ma këram gi nekk Maris xaw ma ko. bi ma gëjën gisanteeg Balla Gaye nii mu gisanteeg man mi gisanteeg moom ne ëpp na deux ans giñ naa ko ci alxuraanu karim deux ñaari at. Ah, war a defaraat. Balla lan moom ah, sa wàccuwaay. Ah, ay sëñ Moustapha xale bi boo waree gé boo waree gëlëm ba loo war a ci xeeb ko. moom a ko jox Macky est bi muy njëkk laaj réew mi na ma daan campagne ak léegi benn la dégg na roi des arènes Modou Lo dégg na roi des arènes dañuy passé la cour taalibe sëñ Muntaxa Baye Balla ay jox leen ma micro la kan mooy Médoune ah, jërëjëf Médoune nag yow da ngaa sawar di ma ko laaj waaye man leer na ma yaa ma ko gën a xam dama bëgg nit toog rek bu nit ku baax xam nañ sa wóllëre Médoune waaye nag taaru kër gi fi nekk gi nit ku ñàkk ki ñaan nit ku fonk ay mbokkam te bëgg jàmm kay li ma gën a neex ci moom dafa bëgg sama sama sama sama rakk ji Guèye Niambeeg Mar Xaasim ak Seyna bu fëre ci gi cawaan bi suuri bi ci mbaaw mari ma leen mi ci kàddu gi bokkum nday nday fàllu Guèye bokkum nday isa sama rakk ji am personnalité Jami Guèye sama rakk ji am dignité Jami Guèye sama rakk ji bari ay valeur ci jigéen Fadal euh, jigéen da ngay bari valeur euh, valeur bu dañee ci jigéen euh, Fadal ñang dara desatu Jami am na ay valeur am na personnalité Jami boo ko gisee nii ci série muy joué muy joué ci série ak hors série. amiin amiin kooku kooku dégg dégg dafa baax ndeysaan moom Serigne Saliou la bëgg. dama ne la jami boo ko fekkee biir këram da ngay xam ne fekk si nga une grande dame xale bu baax xale bu bëgg Serigne Touba nag xam nga waaye nag Médoune nee naa ko mention spéciale ndax mënoon nga fekk suñu rakk ji ci milieu bi jël sa micro jox ko ëlbati xel mi yàq xel mi waaye yàlla mooy boole ñaar ñu bokk jikko ndax si les belles âmes se rencontrent ñu bokk jikko rek ñoo mën a ànd. yow da ngaa baax barki maam Seera Fall yow ndawal maa ngi lay waatal ni darajay Serigne Touba Mbacké. waaw ah. Médoune Diouf nit ku baax la. loolu moom ñeme naa góor gu baax du yàq jigéen góor gu baax du toroxul jigéen lii maa la ko wax yaa baax te loolu foo fekk góor gu koy def ca kaw ca kanam ci mag mu baax dina ku bëgg yaay bëgg jabar di nga réussir maa la wax loolu ku bëggee bëgg jabar ku bëgg yaay bëgg jabar di nga réussir góor gu bëgg yaay bëgg soxna réussir man faa daal à toi le rébé yàlla doon réussir